salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi ñëwaat ak yéen fii ci dëkk bi ñuy tuddee Fandène ñu ñëwoon fii incha allah ci yoon woo xamante ni daara yaa Aïcha lañ fi may benn teen daara yaa Aïcha nag benn daara la boo xamante ni jubluwaayam mooy jàngal xale yi yar leen. waaye fexe ba ñuy liggéey loo xam ni mooy rëpp mooy féete li ñuy fay maanaam comme daara yi ni ñuy defee xale bu nekk di fay mais ñun ñu am lu ñuy liggéey loo xam ni moom mooy téye daara ji te du am fay loolu moo nekk suñu yéene. ñu taseek mbokk yi ñu may ñu fii benn teen boo xam ne palace bi ñoo ko moom alhamdulilah euh, teen bi nag dina am ay njëriñ benn mën na jëriñ daara ji ñuy liggéey fii loo xam ni mën nañ ci yëngatu mu jëriñ daara ji beneen bi mën na jëriñ waa dëkk bi aussi ndax dëkk bi ndox daf fi jafe. ndax robinet bi fi nek danaka goudi lañuy rot te ñaare du am ndox ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yombal ko mu nek ten bo xamni dina am jeriñ yo xamanteni dana law ba gox yi yep mu laal len inshallah di ñaanal ñi nga xamni ñom ñoko ñoo ko daal di financé yal na yàlla barkel seen alal ñi nga xamni ño ñoo taxaw liggéey bi it yal na yàlla fay len barkel seen jéego fa jazakumullahu khairan barakallahu fikum nous sommes à, dans la région de Thiès, à Fanden. Pour le lancement du puits qui est offert à, à Andara, le chef de la madrasa vient juste de vous expliquer un peu. Euh, donc c'est destiné à Odara, donc pour une culture maraîchère et aussi pour la population qui, vit dans les parages. L'objectif c'est surtout de, permettre à, l'école coranique de trouver son autonomie financière avec donc cette, euh, culture-là maraîchère qui sera développée ici. Qui vous qui avez financé ce puits, on demande à la soin d'accepter pour vous ce, cette et donc de vous faciliter le financement d'autres prix. Et donc comme on vous l'a dit, donc ça va aider non seulement les élèves de, la DARA, mais aussi la population qui vit autour et surtout aider aussi l'autonomie financière qui est visée. Donc on nous demandera là de vous, de vous faciliter, d'accepter pour vous et on vous donne rendez-vous pour l'inauguration, pour Inch'Allah.